Touba Taïf Karo Touba Taïf Kër Xaadim Rasoul Daaru Nahim multiservice Golden Café compagnie Ñamar business Sané Bay Ginaar entreprise Mohammed Serigne Cheikh Iwil Salihina Xawdu Couture un Dakar alimentation Xidmatul Xadim Xaadim boutique waa kër borom Xawdu Taif Déco ñoo leen di may seen jongante xasida daaray tànk yi sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke kon mooy candidat bi njëkk yëg tey sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke bismillah madal xabiru lii wal kabiru mala yabo مد الخبير لي والكبير ما لا يبور من اللهي هبار وقد سافى لبعديني دمادير بهند ترابي بلا ديرابي ولا yanoo sokoori ila shakoori hala shakoori zarbi ila taqi laysi saqi babi ruqi yanhoo niday لم ينه قلبي داع لقلبي أو داعي سلبي أو داعي داعي خيرا الزهور يوم الخفي يا زلكتايب لغيري تايب لغيري تايب من كاشفي لك حروفي منك صروفي ما هو يزل هي لك هروبي منك زروبي ما غروبي يزل هي لك هروبي منك زروبي ما غروبي jërëjëf ci njàng mu am solo mi di siyaare bu baax euh, sang bi euh, sëriñ xaadim yàlla def na action na ci jotaay bi daaj bi gone yi jël tey nag ci fàttali mooy daajub sëriñ abdul xaadir gasama bokk ci mag ñi yàlla def mu jiitu euh, ñu di ko fàttali ko tax ñu indi ab daajam Euh, ko jàmbaar la woon ci xasida yi bari na euh, lu leer ci xasida yi ci ginnaaw bi fi ma ñu jógee uur bi ci topp nga xam ne tey ji bu ndaw ñi bari mënee jaruñ ci xasida yi seen da ciy liggéey lu baree baree bare bari ba ci daara yi gën a mag ci Sénégal ñu ci baree bari seenum njàng ba muy door ci moom la awee bokk na ci ñi ci jaa ñaax ñaax ndaw ñi daan ko leeral ci ay bande di wan yoon wi ndaw ñi ma topp ba tey ji njàng mi man a tasaaroo yàlla def mu jiitu ji ñu ngi koy ñaan suñu borom doole ko yërmande doole ko ay xéwal moo tax tey tey daaratu tànk yi jël ab daajam ngir rendre ko hommage moo tax ñu jël ab daajam tey indil ko nit ñi ngir fàtt ngir di ko fàttali ko baax a baax na ko ñëpp ñaanal kon su ko defee léegi ñu jox euh, mbokk taalibe yi juge yi ko ñoom ñoom lu ñu seetlu ci daaj bi ñu doo ko jàll ci beneen mbokk taalibe bisimilah. jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Khadir macha allah am na solo lool am na solo lool ku la dégg ni mu doon jànge dana xam ne. Eh, son nga bu baax si teewlu gi am na solo lool comme yi yi ngay yi ngay xaw a bàyyi rek mooy comme troisième xab bi waaw daa mel ne lasion boobu ni nga koy defee day xaw a day xaw a day xaw a néew doole lool te mën na gën a dikk waaw laka sooro waaw comme boo defee laka sooro yow mal xafay maanaam ondulation bi nekk si troisième troisième xab bi boobu waroo ñëw rek raay ko da ko war a on ko war a on la bu baax muy gën a muy gën a génn waaw am na solo lool am na solo lool njàng am na solo jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Khadir ci njàng mu am solo moomu kon mel na ne bàyyi na xel bu baax a baax eh, lii sëñ yoro doon yi ci njàng mi ci daaj bi troisième xaab bi bi muy wax ne dafa am woy woo xam ne dafay xaw a manqué tuuti kon jërëjëf waaye lu ci mën a am moom njàng mi neex na lool macha allah xam naa tey jii moom ñi àtte dana xaw a kii ndax dafa mel ne gone yi lu ñu gën a dem rek ñu ñuy seen góorgóorlu di gën a feeñ ak coono bi leen liggéey bi jaral jërë ngeen jëf ci jëwrin yi leen tàggat ci daara ji sëñ Jaxat Mbay moo ci war a topp sëñ Jaxat bisimilah su ko defee yow ñu déglu la ba xam matal qabiru li wal kabiru mala صفاتها لكحروف من كسروف ما نور فيه يزالها لكحروف من كسروف ما نور فيه jërëjëf sëñ Njaxat kon xam naa dañuy bàyyi ak waxtaan ci laaj ah, ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ziare bu baax mbokki taalibe yi fi teew yëpp di di jiital sëñ sëriñ sëñ di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér lim nam ma liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi suñu borom kàttanal ko am àggale ak mboolem taalibe yi di jaajëfal sëñ jaxat ci prestation bu am solo bi xam naa li ma ci wax rek bu ko defee gaa yi jàll ci les xam naa li ci njëkk mooy jëmmi neexitu neexitu baat bi wax dëgg masha Allah daaj bi day mel ne neex na lool ci jàng gi beneen bi topp li ma ci seetlu mooy maalaa ya booru malaa ngay waxee malaa daa maxti bi damax rek ngay wax loolu moom seetlu naa ko xam naa jës dama koy bàyyi gaay ñu ñu ñu ñu yéeg sëñ yow bisimilah waaw am na solo comme ni ko sëñ Ousmane waxee rek xëy na liñ ciy dolli rek mooy xëy na liñ ciy dolli rek mooy comme comme comme comme doxin wi doxin yi nga gën koo bàyyi xel bu baax a baax surtout maanaam euh, surtout deuxième xab bi ni koy defee daa mel ni daa xaw a bu xawee diib rek day day dem waa kër Sëñ Masamba bu ko defee doxalin tamit da si am solo bu baax a baax nga koy bàyyi xel waaye am na solo lool jërëjëf waaw deuxième xab bi comme euh, comme euh, kii bi waaw madal xabiru liiwal kabiru foofu laay wax waaye waaw onlation boobu wërta wërta di ko noonu maanaam bu diibee rek day day dem waa Christmas Samba ni nga koy indee مدى الخبير لي والكبير bokkut ak lii wal boo defee noonu rek day day day dem waa Christmas Masamba bu ko defee loolu laay expliqué nga bàyyi ko xel bu baax am na solo jërëjëf. ak sa sëñ Yoro jërëjëf ci leeral yu am solo yi kon sëñ Jaxat kon ba ci tuuti incha allah. Euh, sëriñ Fallou Gueye moo war a ñëw sëriñ Fallou Gueye madal xabiru leewal xabiru malaya buru minalu hay madal xabiru leewal xabiru malaya mun mi لك زور يوم القيامة tey jii moom du yomb moom gone yi dañoo jàmbaaree lool lool lool lool wax dëgg yàlla jërë ngi jërëjëf sëñ Fallou njàng mi daal moom fu ko na ko neex na lool su ko defee sëñ Aliou bu dee am na ci lu ngeen ci jubanti waaw jërëjëf sëriñ Fallou njàng mi wax dëgg ku ko dégg xam ne sonn na ci njàng ni nga koy jàngee neex na lool macha allah waaye seetlu ñu ci am bi ci njëkk mooy léeg-léeg yenn araf yi ni nga koy tuddee day xaw a oyof lool loolu feeñ na ci bi ci des mooy ci ñetteelu xàbbu yi dama boobu moom am nga fi problème mala ya am na wàcc boo ci def loolu bokk ci day xëj jëm feneen na loolu bu ñuy repte ñu koy bàyyi xel bi ci bi ci bi ci desaat mooy maalaaya bóoru malaaya bóoru nga wax xëccoo maa loolu tam mat naa bàyyi xel bi ci desaat mooy dañ comme dañ leen ko baax a waxee rek boo yëkkati del jàpp del jàpp sa loxo ci sa nopp loolu dana la dimbale waaw seetlu yooyu yaa ci amoon rek. ok jërëjëf sëñ sëñ Fallou ñu ngi lay bu baax di la jaajëfal ci prestation bi am na solo xam naa bu dee man moom la may seetlu mooy maaxin dalaale waaw maaxin dalaale. daa mel ni loolu day bëri na kuréelkat yu yàq xeeti yàq yu bëri na kuréelkat yu ko yàq waaw maaxin dalaale la ñuy wax. ak anama sax beneen maaxaa tilaali maaxi dalaali moom nii xalaali daa mel ni xag yi xag ko jàngalee lekk waaw lakkatu tamit buñ demee ci lakka xóoroo fi wooyu njëkk wi mooy bi nekk ci topp mooy bi topp ci ci ci wàcce bi lakka xóoroo fi min ka xóoroo fi yow biñ ci accès ci rim bi nga def bu njëkk bi nga ko def rémbi rek nga def loolu laaj ci seetlu ok macha allah mm, jërëjëf euh, sëriñ osmaan ak sëriñ Aliou kon sëriñ fàllu Guèye kon baax na kon dem toog déglu bi ka am tuuti meneen sëriñ Fallou mooy ñëw kon muy sëriñ fàllu mbay sëriñ Fallou Mbaye kon mooy mooy war a ñëw شكوري على شكوري ظرفي njàng mi am na solo te ànd nag it ak akub yar ñu ngi dolli di siyaare mbokki taalibe xam naa di gën a bàyyilu xele ci kaw tribune bi waxtaan wi su ko defee bu xawee bari rek day perturbé kon bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Fallou am na solo lool comme li doon fàttali sànq rek daa mel ne gis nañ ko si. comme jëmi madal xabiro ni ñu koy defee online bi daa mel ni ñu koy indee dafa dafa dafa ëpp lool madal xabiro defee waaw da nga koy da nga way bu baax a baax te mën na mën nay dikk rek yam madal xabiro daa mel ne tamit defaan nga ko si ilaa taxee ilaa taxee mën na mën na mën na yam rek mën na mën na bañ a gudd waaw am na solo lool jërëjëf loolu laa seetlu waaw jërëjëf sëriñ bi wax dëgg njàng mi am na solo daaj bi moom mel na ne jokk ngeen ko lool ngeen koy jàngee neex na lool macha allah comme ni ko sëñ a waxee rek léeg-léeg ondulation yi day rëcc wala dañ ci dolli moo feeñ ci ñetteelu xàbbu yi malaayee booru comme li ma la wax ki jug léegi xañ na yow wàccoo sax wala boog bokku leen nu ngeen wàcce ndax yow boo tudduru rek day mel koy roonu ci suuf malaya bo malaya bo bokkut ak ni ngay def nag yow leneen ngay def malaya bo day mel noonu nga ko xeet boobu nga koy defee loolu laa ci yëg rek jërëjëf euh, Serigne Fallou kon moom it dina mën a dem toog ci biir jotaay bi su ko defee ñu woo candidat bi ñuy wax euh, sëriñ Cheikhouna Fall Adja su ko defee moom it ñu déglu ko ci daaj bi moom it sëriñ Cheikhouna bisimilah madal xabiru lii wal kabiru ma la yaburu minaluhay madal xabiru لي والكبير ما لا يبور من الوهي ربي إلي وعيبي مع الموهبي سفر تغني على بلندي مدو المغابة أمري يا زابة وقد زابة الغرور على زبور سلبي زناي إلى تقي ليس سقي بابي نوقي ينوني داي لم ينو قلبي داي قلبي أو لا يصل به أو لا الرسول يوم القيامة يا زكاة لغير تائب لغير تائب من كسبي لقاه من كسروف مع زلوها لقوا في منك سروفي مع الغروب يا زلوها لقوا في منك سروفي مع الغروب يا زلوها ajaa ci njàng mu neex mi kon ñu jox juge rek ko defee ñoom it ñu njëkkanteeg waxtu yi bisimilah. jërëjëf sëñ Cheikhouna ñu ngi lay ziare bu baax di la ndokkeel ci prestation bi am na solo loolu xam naa li ma njëkk sa lu mooy li sëñ Aliou doon wax ci tàmbalikaay gi mais day mel ne bi ñu tàmbalee ba léegi ñuy jàng ñëpp du njëkkati loxo ta day mel ne daa bokk ci liy taaral kiy jàng ak li koy noppal. waaw nooy ak muy yëkkati loxo yi ok beneen bi topp mooy day mel ni laaj bi lépp da nga koy indi ak neexit yu daal waaye mujjantelu xab bi maanaam mujjantelu bayit bi foofu ngay saboo ngay sabootalu da nga koy gaaw wàcc maanaam dafay jeex nga bàyyi ci xel dégg aw wax da gaaw wax daa rek tudd ko mu mu wàcc ci suuf dégg nga loolu laaj seetlu ci daaj bi waaw jërëjëf sëñ Seexuna ku la dégg nga jàng mu xam ne maîtriser nga daaj bi li nga koy jàngee am na solo lool waaye comme ni sëñ Ousmane wax rek nga bàyyi ko xel te di ko bàyyi la war xel ñëpp day mel ne liñ koy répété bari na waaye day mel ne du tee bu ngeen ñëwee ngeen koy def rek am booy jàng booy bëru de yëkkati sa loxo taf sa nopp booy samp tam noonu loolu mat naa bàyyi xel ndimbal la doon ci yow miy jàng bi ci des mooy war ngaa doole dal gi ci njàng mi day mel ne eh, ni jëmm ji day jàng dangay topp jàng mi eh, baajeeg mel ni kuy tëbëk yooyu yëpp mën naa bàyyi ba ngaa toog benn place rek def li nga bëgg a def bi ci def li ma ci seetluwaat ci eh, njëlbeen gi rek xilli nga wax xilli xilli la ñu bàyyi gën koo bàyyi xel bu baax yaa loolu rek laa ci seetlu woon waa jërëjëf Serigne euh, Cheikhouna Fall Adja. waaw maa ngi tudd bu baax daa am lu ma bëggoon wax sama xel génn ci bi ci des mooy ci gam bi nga teg bi nga teg daaj bi dafa mel ne dafa xaw a suufe loolu moo la xaw a sonal euh, bu ñuy jàngati ñu xool foo xam ne dinañ fa gam bi bu ñu ko tegee dinañ mën a bëru jot ko dinañ samp jot ko te rim bi du suufe ci ñun bi ci desaat tam bul topp comme ni ko axama leela rek nga xam ne fu mu nooyee nga bëgg faa nooyee déedéet léeg-léeg baat yi du bokk bu sa baat xawee néew doole mën ngay nooyi ci diggante xàbb loolu laa bëggoon wax rek. kon sëñ Cheikhouna léegi nga nga dellu ci biir kàndaay incha allah ba tuuti kon sëriñ Abdou Lahad Kébé moom moom war a déglu Abdou Lahad Kébé. madal xabiiru lii wal kabiiru ala yabuuru minal أتى الخبير لي والكبير ما لا يبور من اللهي حباء ربي خلي وحيبي مع الموت حبي سوف يشتهي محادي لالي محيد لالي مني حلالي بلا انتهاي مدح المقافى عمري سوف وقد سوف لبعدنا دمع الطراب عند تراب بلا غدير ولا يحوش كوري إلى الشكور على شكوري ذري ثناي إلى تقي ليش الشاخي ما بالروح يحوش لله لم ينحوا قلبي داع لقلبي أو داعي سلبي أو داعي داي خير العلم لقدور من قلمور لقور يوم الخفي يا ذا القذائب لغير تايب لخير تايب من كشفائي لك حروفي من كالغروفي مع الغروب يظلها لك حروفي من كذروبي مع الغروب يذلها لك حروب منك ذروب مع الغروب يذلها njàng mi neex na lool xam naa dañuy euh, déglu juge yi Euh, te bu fekkee benn kàndaa xaj na fi ñu jàll ko boo xëy ñu julli ji ba ñëw bisimilah. ok jërëjëf sëñ Abdou Lahad ñu lay ndokkeel bu baax ci prestation bi am na solo lool macha allah xam naa liñ ci gën a seetlu rek mooy rythme bi fi nga ko teg gàmm bi daaj bi moo waaw moo suufee loolu moo tax li ñu bëgg a dégg dañ koy for rek waaye duñ ko dégg bu baax waaye wax dëgg am na solo waaw. waaw jërëjëf sëñ Abdou Lahad njàng mi neex na te tam wér na waaw li ko Ousmane waxee rek fi ngaam bi xaw naa suufee xaw na laa sonal sax feeñee ci njàng mi ba lu ci bari lee léeg dañ doon am problème mu dégg ko dégg ko gën a yëkkati bu ci des mooy sa baat bi danga koo téye te loolu da lay sonal man ngaa bàyyi rek jàng comme ni sa baat mel rek nga jàng noonu noonu moo lay gën a dimbali waaye. xañ na nii boo ko continuer di jàng nii boo demee ba sax ba xaw a màggatu daan loo sonal loolu jërëjëf Abdoul Ahad Kébé kon Mouhamed Mbaw ñu ñu déglu ko rek te euh, euh, waaj dem joxe ci waxtu suñu borom bi te ñëw yeggale dafa mel ne diggante nodd ak julli dana mat euh, fukki minute ñaar jëm ñett te dafa mel ne son bi de du weesu ñett minutes yu teg tuuti kon day mel ni diggante kon ñaari kànda euh, mën na fee xaj kon Mouhamed Mbow bisimilah. madal xabiru wal xabiru mala yaburu minal lu madal xabiru لي والعبير ما لا يبور من اللؤي عبار بالرواي ما هو بزبادي ما المعلال بالانبياء مدمغاف عمري يا زاف وغاف بلا ربي ولا نعيم يرزقني إلى زقوري على زقوري زربي زناي إلى دقيق ليس ساقي بابروقي ينوني داي لم ينغ قلبي داي لقلبي أو داي زلبي أو داي داي وكازور يوم الغيب يا ذا غائب لغير دائب لغير دائب من غيظ لك عروبي من غيظ مع الورود يظل وعيد لك غروبي منك سروري مع الورود يظل وعيد لك غروبي في من غزوروف معروف يزل هاي lu lu ngeen ko war a ci daaj bi ñu déglu ko te yëkkati jotaay bi ginnaaw ba nu jullee ba noppi ku ne toogaat ndànk rek fa mu su ko defee léegi ñu fas yéene waylaat liggéey bi incha allah balaa jant bee gën a guddi ñu mën a yeewee ko ndax dafay mel ne ginnaaw kàndaa yi mi ngi gën di wàññeeku comme bi coole wàññeekoo rek kon waras naa mën a am temps ba lu bari li nga bëgg a jàllale mën a jàll ko defee ñuy sàkku rek ñu dimbali ñu rek ñu wàññi coole tuuti joxo benn

sarfi لك سور يوم الخفاء يا سلك تائب لخير تائب لخير تائب من كسيفات سلوها إن لك عروف منك صروف مع عروف يا سلوها إن لك عروف منك صروف مع العروف ok jërëjëf suñu xaarif ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci jàng bi am na solo lool macha allah xam naa bu njëkk yi liñ ci njëkk solo rek am na ret feekoon ko ci bu jëntal gi nag mooy lameen xooxal bi ak ila taq yi bi nga ko njëkkee def danga nga koo wàcce comme bi ñëw ci tolluwaaye rim bi nga ko def bi nga ñëwaatee ba ci mujjante gi rek nga koy doogay nuwaat lakka toxoor ak yaasal ka waaw loolu moom lañu ci bàyyi xel ci daaj bi naa li ci des damay jërëjëf am na solo lool comme ni ko Ousmane waxee rek am na solo lool day am ay tolluwaay yooyu def yoo xam ne day xaw a nurook day xaw a dem waa kër Sëriñ Masamba ko defee yooyu tamit da nga koy bàyyi xel comme lu demee ne ko madal xabiru comme comme loolu loolu beneen façon jàng la loolu da koy bàyyi xel da nga koy gën a bàyyi xel bu baax ak léewal kabiru comme sanri sànn yooyu yooyu dëkkut dëkkut si njàng mi dëkkut ci njàng mi danga koy danga koy bàyyi xel bu baax ak beneen bi tamit malaya boro minan lu ay madal xabiru comme comme loolu man na mën na gën a gàtt madal xabiru لي والكبير ما لا يبور من waaw defe naa ne xam ne bu amee lu des kon gaa yi ngi waaye am na solo loolu daal ngay gën a bàyyi xel bu baax rek comme boo dee boo dee jàng nga xam ne daaju daaj bi moom nuróowut ak benn benn benn jàngin waaw nga gën koo fonk bu baax te tamit boo ko bàyyiwut xel pour nga yenn sànd yi ngay taw yi daaj yi day dalay yóbbu si si beneen beneen beneen rimbu am na solo la jërëjëf madal xabiru li wal xabiru mala yaburu min alluhay madal xabiru li wal xabiru قلبي داع لقلبي أو داع الورف يزلها لك ورف منك سرف مع الورف يزلها kon xam naa sëriñ Mor Sama bu dee sëriñ yu am na lu ngeen kii ci daaj bi waaw. ok jërëjëf sëñ Mor ñu ngi lay jaajëfal bu baax xanaa day mel ni moom liñ ñu soxla ci daaj bi wala ci ëpp liñ bëgg dëgg dégg dégg nañ ko ci daaj bi moom macha allah xanaa ñu ngi la ci ndokkeel bu baax li la ñaanal suñu borom defal la ak kàttan ak. waaw bisimilah. Sall Couture. Darou Khoudoss Vaisselle. xawdu plombier école privée Mouhamed Serigne Cheikh école privée xawdul Mawrud Cheikh Diop construction euh, Touba Taïf Karo euh, Touba Taïf Kër Xaadim Rasoul Daaru Nahim multiservice Golden Café compagnie Ñaamar business Sané Bay Ginaar entreprise Mouhamed Serigne Cheikh Huile Salihina xawdu Couture 1 Dakar alimentation Xidmatul Xadim Xaadim boutique waa kër borom Haoudou Taïf Déco ñoo leen di may seen jongante xasida daaray tànk yi